Macky Sall alhamdulilah yàlla boor nañu parce que man waa kër Mansour Baro la waa kër Thierno Ahmed Baro te ñoom ki Macky ki ñu lay sosoo suñu loxo la juddoo kon bu ko yàlla falu nekk président sama président ngoog ñu ngi koy ñaanal teroo bu ñu yekkatee loxoom ci kanamu mboole am na ñuy wax mais alhamdulilah rabbil alamin luñ ci wax rek yàlla defal nañ ko rek ñuy sant suñu borom. ni ñu koy gisee mooy ñu dolli ñaan rek parce que yàlla mooy joxe yàlla mooy xaññi bu wax a jotee incha allahu dinañ ci wax waaye fu ñu tëlli ni temb naka ñu ngi jëm àggaguñ kon bu ñu àggagul naka waxa duma ci wax jot jotuma ñu wax ma jot naa ba pare waxuñu ma ba ñu romb ba pare ñu di ma wax wax ne ne jooy na dal nañ ci yàlla musal maka bu ne wax nga ne bugg nga ne loo ki wax rek yàlla defal la ko kon wax bu jotul nag loo ki wax rek bu yàqoo ki yow la kankurang la dëgg la mais cosaan la bi nga xam ne moom dañ koy fekke woon ci maam yi ñu fekk nag mu nekk cosaan bu baax boo xamante ne day defar ki diggante mbokk ak i mbokk ñu fekke itam boo fekkente ne defoon nañ ci sunna bi nga xam ne maam Ibrahima moom lay tàmbalee bu ñu defee sunna boobu ki manding yëpp dañoo jël kankuran di ko sàmmawaaleel ko dëkk dañoo denk ak suñu bopp ki suñu borom waaye am na yëngu-yëngu boo xamante ne boo amee il faut que yoo xamante ne mun nañ ko ki dugal ci biir boo xamante ne mun nañu ko sàmmwaale kooku moo waral kankuran bi ñu fekk maamu yi di ko def te wàññu ñu ki daara alhamdulilah rabbil alamin ah ñun itam ñu di ko jàppale ñu ne mbuuru kankuran mbuuru kankuran ko kii mbuur rek bu waxt bi jotee rek boo dee soose boo dul soose kankuran moom a xëj nga ci biir parce que bu xasee génne rek amul ben race bo xamantene ku lu xol amul yow kay man duma xol ngay mën wax mais sama rasi sangam duñu xol kangura lol mom moom <laughs> yal nañ ci yalla musal ci wax bobu sax day ar bu baax a baax baax ndek ñepp xam nañ ne foy rendi ki deret mo tour bu guddé wala bu kuttiwul ñi nga xamné soxla mar dereti bobu danañu fekk fan la deret bi tuur woon ñu dafa maraate bu deret bi neexee nag ñu xalaat bii moo neexa surtout lu ki des na man nañ koolu kaafo kulle jeten soko ceng kon moo waral nag kankuran bi ñëw di sàmmawaale ñi nga xam ne seen deret yi tuur nañu bu yeneen yëngu tam ala kulli xaalin fu ñu mën a yangu dara jàmma ak xewal rek ndeke kankurang yàlla dimbal nañu ci doomi aadama yi jinne façon bu mu nekk kenn ñemewu ko kankurang nag secret ki suñu borom la mu denke ko ci man nii secret boobu alhamdulilahi rabbil alamin sàmmaale nañ ki suñu lu bare bare bare bare bare bare moo tax fu man di nekk rek bu rek dañoo daal di ci xaaruwaale ci kankuran fii nag dafa xaaw tubaabee waa ñun suñu dëkk bu man koy bu ko ñor rek te ñoraguñu dañoo kenne kankuran ñu ne ko aar mango yi pour ñu bañ a ko falafala ak guy ak buy ak le jigéen bu ñu xeexee ki teen ba ay yoon benn yoon ñaari yoon rek ñu génnee kankuran ñu ne nag léegi kankurang bi moo tere xeex ak teen bi ci dëkk bi képp ko fi xeex dinañ leen génne ci biti kankurang bi door leen sama sàmmawaale la ci dëkk kon kankurang sàmm rek moo ko tax a jóg yaaka taxu ko jog ku mun a firi kankurang rek firi ko man de sama yoon nekkul ci loolu ku mun a firi kankurang mooy kan ah, firi ko rek parce na ku nekk da ngay wax sa wax concurrent nag man de moo ko tuddee man di moo tuddee kankurang ñëpp nañ ko xamee noonu kankurang du kankurang de du loolu la ñu koy kattalee noonu du noonu kankura ah ah kankura soose dafa ne kankuura laa kankuura laa nag kilifa la de bu mag a mag a mag